jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni ngeen ko xamee ñu génnee ci koor gi te duggaguñ ci aj gi walla bi ñu génnee ci koor gi di waajal aj gi borom bi santaane woon koor santaane aj bi mu santaanee aj santaane koor ñu jeexal ci koor gi doon seet sunu koor ci yan koor lay bokk balaa ñuy dem ci beneen tomb bi nga xam ne mooy aj gi ñu vérifier ñun ñëpp suñu koor pour vérifier nag waxoon wax naa ci bind yi ne ay tomb yu bari la yàlla boole subhanahu wa taala tomb yooyu ma jëloon ci benn nekkoon ca mu jëm ci wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil lekk alal li ci tappale ma tolloon ci ñaari tomb yu am solo mooy sunu borom dafa am yumu mu farataal yu yoonal ci constitution bi di tudd alxuraan nu ñuy sàmme alalu xeet wi waaye nu ñuy sàmmale kenn ku ne sa alal ndax alalu xeet wi ñun ñëpp dañ koo bokk ba ñu pare nag kenn ku nekk am séefi bopp ñaar yëpp bu ci nekk dañ koy sàmm sunu borom boo demee ci alquran ci suuratu nisa wala tutu sufaha amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama allati jaala allahu lakum qiyaama alal borom bi jàngal nañu fii ne lu taxaw moo ko taxawal waaw alal sëy bu neex ñaare alal def cay jouer bu am solo kër gu rafet daf cay jouer bu am solo waaw nekkin wu rafet noonu bokk gu rafet noonu alal daal tabarkàlla yàlla nañ ko am ngeen am ko yàlla ni ngeen ko am nu am ko moo tax euh, mu ne bu leen jox ñu xamul alal seen alal yi su ngeen seetloo kon alal borom bi sant àlla wàccuwaay boobu la ko jox wàccuwaay boobu la ko jox waaye it bu ñu demee ba alal ji ñu koy jox seeni boroom nañ ko wutali seede nañ ko wutali nattu ba xam dal koy seede waaye lu aajowoo ci alal it lépp nañ koy bind su ngeen seetloo ñol-ñol ji ci pénc mi ñol-ñol ji ci pénc mi léegi génn ci koor gi ñol-ñol ji ci penc mi ci pétrole ba gaz ba gaz ba pétrole ba waaw tabarkàlla di ci tudd tur loolu cim penc cim penc bi alxuraan ñëwee ba jàngale lu ñu mënoon a moytu la nu jéem ko moytu nun ñëpp waaw waaye mbokk yi ma tolloon ci yooyu nga xam ne moom la sunu borom rëdd pour sàmm alal di nit ñi ci la araamale riba ci la araamale riba riba mooy kii dafa soxla mu ñëw lépp xaalis ki ko lebal xaalis ne ko sooy fay si lii ma la lebal muy fukki junni danga ciy teg ab junni lislaam ne déedéet déedéet ñu ne ko dooy def mu ne leb junni fay junni ku leb junni junni ngay fay ñu ne lu tax mu ne xaalis laa bëggut mu liggéey morom ja xaalis laa bëggut mu liggéey morom ja su fekkee da ngay bay nag wala ngay commerce wala ngay def leneen nit jox la capitalam am na nu ngeen di def ba mën di séddoo la ngeen di am waaw moo tax finance islamique jara bàyyi xel lool ci penc bi bari na penc yoo xam ne li tax ñol-ñol am caag yooyu dañoo complexé melu ñu ni Malaisie Malaisie mi nga xam ne complexé wul ak yeneen réew dañoo gis ne système bi lislaam tëral ci wàllu leb ak leblante ku complexé wul boo ca jaaree doo dugg ci crise lislaam araamal riba wax ni yaa lladiina mënu laa taakulu riba adaafan mudaafa waaw wax feneen yaa lladiina aamanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen jullit ngeen gëm ngeen ragal leen yàlla teg ca ragal leen yàlla te rafetal wutin wi ittaqullaha wa daru ma yi mën ar-riba ragal leen yàlla te rafetal wutin wi professeur mas nañ ñoo nekk li lu ma nekk li ci koor gi lu bare bari ndax daf ma yéem te mën naa am bu ko professeur déggee mu yéem ko mbaa Farba Soumaré li ma yéem mooy dañu ne benn borom xaalis buñ daan wax alaaji njug ak kebe dafa génn àdduna am keneen ku ñuy wax ku ku xel ku amutum xel ngeen baal ma ci baat bi wolof naan ko dof faatu ñu duggandoo ñoom ñaar ci fi ñu leen di waajale ca tubaa ne nañu ñu waajal ñaar ñépp ñoo tolloo ay ndox ñoo tolloo càngaay ñoo ko niroole ñoo ko niroole ñoo ko tolloole ñu teg leen ci jaat yi génne waaw euh, suñu Abdul Xaadir jàngale fa bind bu rëy bind boo xam ne nee nañu marees na koo bind ci or ndax dafa génn daan ku ci ku ci njuga bi mu génnee bam ne ku ci njuga adduna yépp tukki waaw la kon nag nañ yàlla mu ne ragal leen ko teew rafetal wutin wi ndax li nga xam ne yàlla daf ko bi nga am ko soo ca soo ca jekkee am ko soo ca ñaawee am ko soo giiroo am ko soo teeyee am ko fii famshu fi manakibiha def leen ndànk rek ku dund ba déwén lekk ba déwén mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam daa ma sa toog benn bés mu yàgg mu ne saaba yi na ku ne ñëw lim lim am ñëw fekk mu ci rëdd wii daal di lim am ñëw fekk ma ci rëdd wii kenn jóg ne ko am na am xar ak ñaari mbaam aku fas ak juróom-ñetti ganaar bi tàmbalee lim keneen jóg am ku jóg ne ñokket waaxu ñëw ne ko lii laa am mu ne ko lan mu ne lii ma sol nii ak dàll yi yónni na ko yow toogal fii seet daan ne saaba gis ngeen ko ëllëg nii rekk lay mel ki naan am naay mbaam am naay xar di lim di lim mu tax jeex kii moom daa ñëw rek ni cëpp ni lii laa am lii loolu mooy bu ëllëgee ku la gën a néewle gën laa yombale ay ay ay audit ittaqullaha wa daru ma baqe min riba yàlla mu ne ragal leen ko te rafetal wutin wi su fekkee gëm ngeen ma in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen ma allahu akbar mu ne bu ngeen ko defut su ngeen gëmut ragalu leen yàlla rafetalu leen wutin wi déclare naa leen guerre waaw su ngeen su ngeen gëmut ragalu leen yàlla wutin wi rafetul faasonoo bi xar bi minallah déclare naa leen ger bu yow ngeen déclaré ma ko ah mu ne maa la ko wax de déclare naa leen guerre ger nag ku ci na day am ay soldaar mu yàlla luy say soldaar mu ne mi ñu nit ñi duutoon nopp lu duutoon nelaw danaa fexe ba duutoon nelaw yow déclarer la guerre mooy yàlla fexe ba dutoon nelaw <laughs> allahu akbar waaw yàlla fexe ba du too nelaw waaw tabarkal loolu lay benn bu ñaareel ba nee na sawara na nga xam ne ci samay soldaar la bokk hmm? waaw sawara ci samay soldaar la bokk limal la soldaaram yëpp tabarkal la nga xam ne kopp koppal dara ba am ko bu fekkee da ngaa déclarer yàlla guerre loo am da nga ko jëndee danga nga ko jëndee ngànnaay te doo génn ci guerre ba loo am da ko jëndee ngànnaay ci doo jënd ca te doo génn ca guerre ba moo tax yàlla ëpp naag geeral maa la ko wax léegi léeg yàlla mere kenn ci marché taal kantinam taal kantini ca wet ga yëpp waaw ndax ndax mere jenn waay ko defee ñu ubbi enquête waaw waaw mbokk yi riba jarima kabira crime crime la bu rëy kirim économique crime économique boo xam ne bëriwaa na pénc mu jagut looloo ko tee jag ndax nit ku dëgëru fit dem lépp ab xaalis dugal ko fenn yàlla déclare la guerre da ngay dem moom yàgg rek doo dem waaw doo dem ni ñu ko wax ci bind yi nag bu la nit lebaloon kër fu ngeen d'accord baax na waaye jox la xaalis nga takk ko dem di jënd ay eh, bala ngaa fay ba noppi mën ngaa ne ba mu yàgg dootoo mën a dem affaire yi di daanu nangam nangam fekk na daa am riba ju ca dugg suñu borom déclare la ger ndax riba joojee bala nga caa dugg da nga sonn waaw loolu tomb la bu yaatoo yaatu bu bu yaatal ci jamono incha allah waaye mbokk yi bi yàlla di garder alali nit ñi ci la araamale lekk alal nit ñi ciy tappale lekk alal nit ñi ciy tappale wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil te Cheikh Bamba Dièye yal na yàlla yokk ko wér ci politiciens yi la bokk dafa am ibaara bu ko neex bu muy faral di wax lu bari mooy li réew mi naan alal de su ko liggéey dañ koy lijjanti nee wax jooju naan ko dindi nan ko dindi na ci sëriñ si wax na ci politiciens yi wax na ci penc yi yëpp wax alal su ko liggéey kenn du ko wax dañ koy lijjanti mukk dañ naan alal su ko lijjanti dañ koy liggéey ki bëgg am te du liggéey walla ñi bëgg am te du ñu liggéey lu lëj ci penc mi ñoo ma te ku lijjanti ba am milliard boo ko mënta lekk mu la jël la milliard ak milliard moom moo ko ji rek la xaw ma baat bi nu mu tudd milliard waaw baat boobu xaw ma nu ñu koy tekkee euh, xaw ma grec ya ko wax xaw ma français yi xaw ma anglais yi waaye milliard daal bu lijjantee ba am ko dana la jël huit boo ko lekkul te lekk milliard dafa jafe sunu borom nee na bàyyi leen lekk àll ñi bil baatili ci ay tappale ay ta ak bari nag waxoon naa ci bind yi weesu ca la riche bokk muy ger ca la corruption bokk waaw ca la suxtu bokk waaw xeeti alal yu baree bari yu xaram ca la lekk alal jirim yu bokk ca la ca la ca la al xulool bokk mooy bokk ak aw nit dara jël ca yóbbu sa kër waaw ndeysaan eh, maa ngi fàttaliku Baye Mbaye bi ñu gënee nekk ay tuut tànk samp gu nuy kër mu daan dawal in oto yu ñuy wax unique baay mbay yal na ko yàlla yokk wér <laughs> sunu waajur mu ñëw ci kër gi sarse ceeb bu jóge wu bu jëmu di saa tol fa la jóge bi mu ñëwee ah waa koñ bi am ca ku ne ko doo ci wàcc ceeb saako ci kër gi ndeysaan mu ne ko ah mu ne ko ah, nit ñi kat noonu def bu ñu sarse ceeb daal bu ñëwee ba agsi dañ ci teggi benn saako teg seen kër dem seet bàyyi mbay tontu ko lam ko tontu ba fii nu toog booba nag bi ñuy ndaw nun xaw noon ci mer ndax jàpp nañ ne daa waroon teggi saako nit ñëpp wala ni daan def waraag mooy jël ab big roof ko ci ceeb bi fépp ceeb yi jaar ci big bi nga def ci sa ndab ba mu xaw a bari nga dem ci beneen saako nga xam ne saako bu nekk da nga ci mën a am ab liibar boo boole liibar yu bari ami kilo allahu akbar ñaata nit lañ leen di jox gasoil ñu kottu dara essence ñu kottu dara ak sunu gaz bii tabarkal yépp ñaata sarchel la ngay dem ñu defal la ay kayit yépp léeg-léeg nga jéem a falsifier këyit ya léeg-léeg nga bëgg caa dugg ci nangam àdduna tukki na te woor ba noppi te woor ba noppi mbokk yi ci alal yooyu nga xam ne borom bi daa bëgg a sàmmal ni ñu seen alal yi ci la araamale kart ak xeetu carte wu mën a doon nag ci la araamale carte ku woor ba noppi daa war a mën a bàyyi carte lan mooy carte mooy jël aw ñeent fukk bëgg ca 3 million walla jël ab téeméer bëgg ca deux millions nga nga gagné wala nga perte loolu mooy carte dafa xaram sëriñ Abbas Sall ko wax ca Louga bu buñ amul buñ amul fitu jële ko fii nanu wër duñ am pexem jëm ca kanam carte waaw carte fexe nag ba def ko loo xam ne xeet bi yépp a koy def loolu adduna ji tukki la bi yàlla ay aaya loolu def ni innamal xamru ñu ne ko waaw mu ne wal maysiru ñu ne ko waaw mu ne wal ansaabu ñu ne ko waaw mu ne wal azlaamu ñu ne ko waaw mu ne yëpp laa boole tudde ko rijs alxamr mooy sàngara waaw almaysir mooy kart lu tax nit nangoo bàyyi sàngara te nanguwut a bàyyi carte mooy kon sàngara ji araam ji taxul mu bàyyi ko daf koo seexlu ndax kii kii carte ñeenti yëf la fi yàlla araamal euh, sàngara carte xërëm gisaane sàngara kart xërëm gisaane ñeenti yeey la yàlla boole ni rijis la rijis seex loolu leen ko ni ngeen seexloo lay ne ca toilette ya rijis ñu ne mu ne ah mu ne doyut min amali shaytaan ku ca nekk yëgal ne nekkoo sama tool nekkoo tool Muhammad nekkoo tool sëriñ si tool koo nekk tool seytaane min amali seytaan koo seen muy carte waaw mbaa muy naan sàngara mbaa muy samp xërëm mbaa muy gisaane sunu baram nee na génn na sama tool génn tool Muhammad ak tool ñu baax ñi tool kum nekk min amali seytaan tool seytaane la nekk seytaane lay lay lay xëyal moo tax fajitani boobu seexlu leen ko laalakum tuflixuuna ndax ngeen mucc fii mucc fële mbokk yi noonu la sunu borom araamale kon kart kart ak xeet wu mën a doon dafa xaraam waaw nañ ko bàyyi bi nu jógee ci koor te fas yéenee dem makk boo àggee nga ne labbayka allahumma labbayka te bëgguñu ñu la labbayka wa saadayka waaw kon dangay ngay yëpp moo tax carte ba gàñña ca aje màkka boo ne labbayk ñu la laa labbayk wala saalik oustaz Assane juuf jërëjëf ci fatwa bu am solo boobu wala leeral gu am solo googu bi lay seetaan ki démb carte ba gàñña ca dem aji màkk nga ne àgg daa ne labbayka suñu borom ne laa labbayka wala saadeyka kenn woowu la fi balay wuyu waaw mbokk yi bu nu yàlla maax baaxee ñu dund ba ëllëg yàlla ñu dund ba ëllëg te weesu ko nu mottali bind boobu door naga ubbi buntub euh, ba ca tege incha allah jërë ngeen jëf bu leen neexee it ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd ci seen jotaay bi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10 heures jërë ngeen jëf.